abone leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokk internautes yi réponse bu ki nga xam ne rek moom mooy Idrissa Seck nekk li nga xam ne nag moom lañ leen fas yéenee dégtal di leen di wax nag ngeen abonné te ngeen di bës cloche de notification bi ngeen di wéy di abonné ci chaîne bi bi la yoon nag mën nañu gannaaw kàddu yi nga xam ne rek kii di président Ousmane Sonko jotoon na koo yëkkati euh, ci ki nga xam ne rek moom mooy Idrissa Seck mburoog soow gannaaw nag ba mu tuddee kenekat moom mii di Ousmane Sonko ci beñ dugub bi da ci xéewlu bu baax a baax a baax a baax a baax daal di nag daanu ki nga xam ne rek moom mooy président bi di Idrissa Seck mën nañ koo dippee ndaamal Kajoor jotoon a xamle kenn kat gannaaw bi mu dikkee ci këram di def li nga xam ne rek moom mooy médiation ci guddi googee ak na nga xam ne rek noonu la nettalee discours ba na mu demee moom it Idrissa Seck nag daal dinay jot a génn xamle kenn kat mbir moomee nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko wax dara amu ci nekkat da doon nekk ku nga xam ne rek dafa bëggoon a neexal ñi nga xam ne ñoom ñooy patriote yi tax mu daal di yëkkati kàddu yi yi ni mel wante man mii sax xam ngeen ne loolee ëpp naa ko ci ay information yi nga xam ne nag mën nañu moom mii di Idrissa Seck mi ngi koy génnee jamono yi ñu toll nii pour kat daal di tuumal taqal deru ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko lañ sa mën a jàngate nag ne du lenn lu dul jamono yi moom politique képp ku nga xam ne rek bëgg nga see am aw tur mën nañu il faut que nag nga daal di laal ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko nekkat moom mooy xorom ci di Idi day wër nag di tudd ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko saa su ne ba taxoon sax mu fiy xëcc li nga xam ne rek moom mooy chef d'opposition maanaam moom mooy chef bi nekkat Ousmane Sonko mi nga xam ne moom moo nekkoon numéro un sax dafa dikk rek bëgg koo daal di folli wante kat benn loxo du tàccu ba tax Ousmane Sonko tontu ko nee na jël bu fekkente ne loolee kase moom moom la bëgg ci li nga xam ne moom mooy opposition bi liggéey moom moo tax ñu nekk si opposition bi kon nag xëccoowuñ numéro un numéro deux di leen di jaajëfal di leen di wax ni indi woy di a abone